Euh, maa ngi tudd Idrissa Sakho responsable jeune Thiès Est euh, tout d'abord damay remercier samay frères et sœurs et camarades du parti ñi nga xam ne nii ñoo fi nekkal parti bi euh, di di di rafetlu rek bis bi nga xam ne toujours dañ koy def di ñuy waajal màggal gi di wuyu appelu Cheikh Amadou Bamba mobiliser yëpp suñuy force financière économique pour jàppale nit ñi nga xam ne nii ñooy dem pèlerins yi nga xam ne ñooy dem Touba di leen yóbbul ay natt di leen yóbbul di leen may café Touba jox leen ay beñe may leen tamit lekk yoo xam ne dana leen permettre ñu soulager ci màggal gi euh, comme toujours directive yoo xam ne moom la ñuy recevoir suñu ministre Thierno Alassane Sall c'est une tradition année bu nekk dañuy faxe faral di jàppale dañu mobiliser tous ces moyens dañuy jàppale ci bis bii nga xam ne nii bis bu mag la bis bu màgg la accompagner ci ngir ñu jàppale pèlerins yi nga xam ne ñoo dem Touba euh, di rafetlu rek jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk nord dëkk ouest ak ñi nga xam ne tamit ñoo dëkk es def liggéey bu mujj ayib pour rek réussir journée bi avant tout damay jagleel benn gërëm ki nga xam ne nag mooy sunu coordonnateur communal monsieur cerno Alassane Sall euh, ci mbébét bi mu am toujours chaque manifestation boo xam ne am na Thiès euh, mu daan ñuy dooleel. ñu daal mobiliser force am yi jox ñu ko ñu daal di poser vrai acte citoyen defe naa loolu la ñu soxla c'est-à-dire que la mu jëmee woon ba muy jël pouvoir bi muy réhabiliter le valeur ci loolu lay commencer permettre ndaw ñi ñu xool seen rôle citoyen bu ñu war a am nan la ñuy peser sur le cours des événements xew-xew bu ñëw ban taxawaay lañ ci am loolu la ñuy appeler jeunes yëpp muy jeune est jeunes yu nekk est jeunes yu dëkk ouest jeunes yu dëkk noor ñu mobiliser wu ba lépp lu xew Thiès ñu mën faa teew apporter ci sunu sunu pierre à l'édifice loolu rek moo waral ndaje bi ñu ngi rafetlu mobilisation bi muy jeunes yëpp ak liggéey bi yëpp ñu ngi def du doonu sax jeune parti bi yëpp mais ça dépasse loolu jeunes yi nga xam ne ñu ngi nekk ci mouvement citoyen yi jeunes yi nga xam ne nii gis nañu acte bi ñuy def ñu daan ñu ciy accompagner defe naa loolu lañ seen Alassane Sall digal boo xam ne nii sax du nekk coloration politique mais coloration esprit citoyen la ñuy demee di ko rafetlu rek merci beaucoup